ñu yokk pouvoir inspecteur du travail dans ce pays là ni am un pouvoir coercitif gis nga léegi lan la ñu war a bugg lan la ñu war a bàyyi Sénégal ñi naan inspecteur du travail bu ñu ñëwee bu conflit amee rek ni jël conflit bi yóbbu ko tribunal mais lan mooy rôle inspecteur du travail les conflits peuvent se régler au niveau des inspections du travail on n'a pas besoin d'aller au tribunal quand le patron a tort il faut sévir au niveau de l'inspection du travail pourquoi on prend les documents on a mais ça mais c'est leur offrir trop de trop de facilité dañu war a bàyyi di jël liggéeykat yi bu ñu amee ay conflit au niveau de l' inspection du travail ñi naan leen dem leen tribunal te inspecteur du travail bi lan mooy rôle nag na état bi changé nañu bàyyi jox ay ay pouvoir yoo xam ne tey inspecteur du travail nañu régler problème yi au niveau de l' inspection ni ni bañ ko yóbbu tribunal